ay milliers de pèlerins Sénégal daw ma ngi fàttaliku lim bi yob yóbbu Makka mo nekkoon douze mille pèlerins euh, ñoo jógoon Sénégal dem ren nak bo boolee àdduna bépp tey xayma bi ñu def ci bisu tay bi 8e jour ci Zil Hijja mooy fukki junni pèlerin kon nga xamni kon euh, Covid 19 bi menacé na ba menacé walé économie bi nga xamni mo moo économie Arabie Saoudite ndax barki dem rek bi may mujjee euh, xamal ci ben xibar ni 94 milliards de dollars tay wa Arabie Saoudite perte nañ ko ci aj bi.

mu xaw koo laal ba 10 000 personnes tey ñoo teew Màkka ci 2020 defe naa ne boo jëlee chiffres yooyu di nga xam ni normalement euh, perte bi perte bu immense la noonu lay borom avions yi di perte les compagnies aériennes noonu la les logeurs saoudiens yi nga xam ne ñoo moom seen ay immeuble moom seen ay hôtel nga xam ne yi dañ ci injecté ay milliards de dollars pour teral ganu yàlla yi noonu la ñu amee perte noonu la mu assasé bi di amee perte noonu la les transports routiers yi nga xam ne jël kaar yi di yóbbu nit ñi mun di yóbbu nit ñi Arafa yóbbu nit ñi diggante Makka ak Medina nga xam ne 400 kilomètres la ak autoroute à péage lañ fa daan fay lañ fa jaay en terme de carburant li ñu daan jaay en terme de restauration loolu tey boo ko perte bu métti métti loolu nag moo répercuté tey ci Sénégal tey boo jëlee par exemple voyages privés yi li ma wóor te wóor mooy perte bu mag a mag mag la te fan yi passé sama ay wóolëre ñu mel ni ñoom Ourey Thiam ak ñu mel ni ñoom def ci ay communication yoo xam ni leeral nañu askan wi leeral Sénégalais yi wax li ñuy xam ne moom la ñuy xaar ci état bi mu nekk ndimbal